dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay yi nga xam ne moom la ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi ko quotidien mu xëy di ñu xamal nañu lu toll si juróom benn fukk ak juróom-ñeent ci ay milliards la njiit réew mi di Macky Sall wax ne moom lay jëndee ak dund ngir nag jox ko ñi nga xam ne ñooy askan wi ndax jamono ji woppi coronavirus ji tax na ñu bare bari jamono ji maanaam daal di sonn yéenekaay gi di réew mi quotidien moom mu xëy di ñu xamal nañu waaye nag askan wi amul dara dara loo xamante ni maanaam mën nañu koo xaar mbir mi dañu ko daal di yàkkamti ndax nag jàngoro coronavirus dafa fekk ñu baree baree bari ci askan bi ci ay gox-goxaan maanaam ci ay région yoo xamante ni nag ñoom daal ndóol gi dafa commencé woon nag di fa dugg yéen kaay gi nee na fu ci mel ni région bu Diourbel Kaffrine Kaolack Dakar ba ci Fatick ak Ziguinchor ba bii ñoo Bignona maatam Tamba région yi yëpp maanaam Covid bii dafa fekk ñu am ay jafe-jafe moo tax nag askan wi jamono ji daal maanaam ñoo ngi xaar mbir mi nag daal di ñu séddale leen li nga xamante ni mooy dund gi ñu daal di koy dundee ndax nag yenn ci ay région li tax nag maanaam ñàkk gi nag daal di fay commencé law bokk na si nag nawet bi nga xamante ni dafa daal di tagga témbe ci yenn ci ay gox yéen kay groupe promo consulting bi mu xëy di ñu xamalaa ñu ni ki démb ci alxames ji nag li ñu nemeeku lu toll si juróom benn ci ay nit ñoo amee jàngoroy coronavirus lu toll ci fukk ci ay nit daal di wér waaye amul benn ka communautaire ndax askan wi ka communautaire rek la ñuy bañ a dégg yéen kay gi di Sud Quotidien moom nag mu xëy di ñu xamal nañu en tout cas li am ba des mooy Sénégal ma ngi góor góorgóorlu ndax nag li ñu nemmeeku ñi nga xam na ñoo amee coronavirus Sénégal mën ñoo wax ne xaaj ba daat na kay fàcc journal bi ne na nag li nga xam ne mooy cas communautaire yi ndakaaru njaay la ëppee te nag bomb la boo xamante ni bis bu kalaatee du jur jàmm yéen a kaay gii di libération na ko xamoo ci dara sax cas communautaire yi nag daal dinay bëri loola maanaam bomb la boo xamante ni nag musiba ma ba kumba gu rëy mën na ko daal di andi waaye nag la nga xamante ni moo sa doy war dafay boo xamante ni journal bi nag daal di xëy wax ñu gox yi xamante ni ñoo amee cas communautaire ci ndakaaru journal mu ñu xamal lan ñu diwaanu Yoff am na ka communautaire Médina ka communautaire am na fa Wakaam cas communautaire am na fa Sangalkam cas communautaire am na fa Pikine cas communautaire am na fa Kër Massar cas communautaire am na fa Dakar Plateau cas communautaire am na fa journal bi mu ñu xamal lan ñu li am ba des tamit mooy Dakar daal jamono ji fi mbir mi ëppee fi mbir mi nekk ndax nag lu toll ci téeméer ak juróom-ñaar ak juróom-benn ci ay nit ñoo ko amee Dakar journal bii di réew mi quotidien ñu fekk fa professeur Iyane Sow moom nag da nay wax ne li nga xamante ne ay wopp la jëm nag ci loo xamante ni ay virus la lu toll ci nag quatre-vingt pour cent maanaam mën nañoo wér te kenn du leen defal traitement journal bi du l'Observateur moom nag daal di xëy ci lu jëm nag ci wàllum séddale dund gi Talla Sylla maire bu Thiès moom àndu ci benn yoon ndax nee na ni nga xam ne moom lañ ko xayma xayma bi baaxul ndax méngoowul ak li nga xamante ni mooy li am maanaam méngoowul ak réalité bi yéen kaay gii de moom mu xëy di ñu xamal naan ñu Thiès ak Touba jamono ji coronavirus amatu fa journal bi nag mel ni luy xëy di laal bant ne cas communautaire yi tamit gis nañ ne démb amul loole nag mbaadu xel dafa fay commencé dal journal bii di Vox Populi ñu fekk fa gouverneur bu Thiès moom nag la mu xamle nee na askanu Thiès daal bu ñu respecté li nga xamante ni mooy état d'urgence bi ak li nga xam ne moom la médecin yi wax armée bi ci boppam la ñuy génn si Thiès maanaam ñu daal di lijjanti mbir mi ci ne mu gën a gaawee yéen a kaay gii de la turbine moom mu xëy di ñu xamal nañu lu nag gën a yéesa juróom fukk ci ay sénégalais faatu nañ bitim réew te Covid 19 moo leen daal di rey laas yéen a kaay mu ñu xamal nañu lu toll si juróom ñaar ci ay sénégalais yoo xam ne daal nañuy faatu New York yéen a kaay gii quotidien ak réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Amadou Ba mi nga xam ne moom lañ dénk mbirum affaires étrangères moom nag ni ki démb daat nay wax ñi nga xamante ni maanaam ñooy am ci ndimbal yi te nekk ca bitim réew waaye nag daat nay wax ne ñi nga xamante ni maanaam woppi coronavirus moo leen rey du leen mën a indi ci réew mi waaye nag état def na ay pexe maanaam jëndal leen li nga xam ne mooy ay bàmmeel ñu mën leen faa denc yéen a kaay gi du moom nag daal di xëy ci xale yu jigéen yi nga xamante ni ñooy jaay seen bopp ñoom nag nee nañu comme kenn dimbalewu leen ñu daal di dimbale seen bopp ndax jamono ji couvre-feu bi moom moo tax ñoom ñu sonn ndax nee nañu góor ñi jamono ji vingt rek ñëpp tëddi te ñoom nee ñu seeni mbir guddi la doon dox waaye nag léegi bëccëg la ñu koy doxal waaye nag ak yeneen feem nee nañu sax clients yi bëriwul la ñu am lu néew la waaye nag ñu daal di say jàpp ñoom daal ndekk ay thermofrance la ñu wut bépp client bu ñu am rek dañuy natt sa température ñoom nag ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi ñenn si ñoom ñoo ko daal di xamle yéen kay gii di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal naan ñu Sénélec nag am na ku fa amee woppi coronavirus covid 19 bi libération nee na tax na nag ñàkkuk deret gu métte métte métti jamono ji mu am ci réewum Sénégal yéen a kaay gii de la témoin daat nay def at ginnaaw bi ñu ko sosee ak léegi ndax nag ñoo ngi ko sosoon fukki fan ci weeru avril 1990 tey di fukki fan ci weeru avril 2020 maanaam ba yéen a kaay gii juddoo lu toll si ñaar fukki at ak juróoma nekk naka hebdomadaire ki nga xamante nag moo ko sos di Mamadou Oumar Ndiaye moom a na ne dund nañ ko ak nag menaces yi dànkaafu yi ak ñi nga xam ne ñoo leen yóbbu ci yoona ak saisi yi nga xamante ni nag usue def na ko loolee lépp daal daana ci xëy dellu si yéene kaay groupe promo consulting bi ak journal bi di Les Échos mu xëy di ñu xamal naan ñu Dame Amara ak ki ñuy wax neex ak Fatima Rigal ak Jaaja Tall ak policier bi nga xamante ni moo leen yóbbu woona ci couvre-feu bi ñoom ñëpp daat nañ leen di man mandat dépôt Amadou ñaan mi nga xam ne moo doon jéem a rawale Dame moom nag contrôle judiciaire la ñu ko def moom record daal nañ xëy ci ki nga xamante ni mooy Krépin jaata journal bi nee na Krépin Diatta en tout cas li am ba des jamono ji bëri na ay club yoo xamante ni ci àdduna bi ñoo ngi koy xëccoo club bu si ni Watford Premier League ak waa Ajax ñoom daal nañ koy bëgg Milan AC timit ca Italie ñoom bëgg nañ ko club yi yëpp maanaam ñoo ngi xëccoo ki nga xamante ni moom mooy Krépin jaata moo leen daal di xañ jàmm